satisfaction totale pour euh, remercier M. Abdoukarim Sall ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il a fait pour toute la population orcadéroise. Parce que vu la situation de nombreuses années qui se passe ici, des étudiants qui se déplacent au niveau des, îles, des villes, par exemple à Dakar, des élèves qui sont orientés à l'université Sarandjob de Job ou bien des autres universités euh, publiques qui n'ont pas assez de moyens pour être là-bas. Et il va falloir qu'on fait des travaux, qu'on travaille ça nous fatigue normal. Franchement, on les encourage, on le dit de continuer dans cette lancée parce que ça, c'est pas pour lui seul, c'est pas pour Odkadere, c'est pour toute la population Fouta. C'est pour toute la population Fouta qui se bénéficie de cette euh, université virtuelle du Sénégal. Euh, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de moyens pour aller étudier à l'extérieur. Il y a des gens qui n'ont pas de moyens pour quitter leur village, aller dans les villes pour pouvoir étudier là-bas. Donc euh, il nous a permis d'avoir une université au niveau du foot, ce qu'on n'avait pas mis dans nos esprits, c'était très longtemps. Maintenant, il vient de réaliser ces rêves là On lui remercie au fin fond du corps. et on le remercie infiniment, M. Abdelkarim Karim Sal. Euh, tey euh, dañu dañu dañu content ci pose première pierre première université virtuelle bu commune département bu Kanel Euh, ñu euh, samp ko fii ci dëkk Orkadiéré commune Orkadiéré ma nekk président association parents d'élèves euh, li ñu gis ci journée tey bi vraiment ci mbégte kese parce que ñun xam nañu li ñu doon daj ci njàng xale yi bu ñu fi amee ay bac ñu dem Dakar am na ñoo xam ne dañ bu ñu demee duñu am fu ñu dal maa ngi profiter occasion aussi di sant Euh, suñu mbokk ñu xam ne taxaw nañu ci xale yi au niveau de Dakar maa ngi euh, tudd fi Bokar Diop immigré la bu nekk Zambie ak Abdou Karim Salmi boo xam ne euh, jëloon ay xaalisam di fayal xale yi ay logement ma sant encore mais de la commune de Orkadiéré Daoud Dia récemment rek moo leen luweel moo leen di jox benn batiment R plus 4 boo xam ne 600 millions amu ko mu jox leen ñu nekk si jàng mais avec loolu yëpp euh, doyul am na ñoo xam ne bàyyi nañ jàng parce que amuñu fu ñu nekk foofu léegi nag bu euh, Abdou Karim Sall demee ba lijjanti université ñëw fii mun nga fi jàng di dem say tool di béy mun nga jàng fi di dem euh, sàmmi mun nga fi jàng dem di di liggéey say liggéey loolu vraiment sant yàlla ñu ngi sant yàlla man ak ci turu lycée bi ak parents d'élèves yëpp ñu ngi sant président Macky sal initiative bu mu def ñu ngi sant ministre euh, Mary Teuw Niane ñu ngi sant Abdou Karim sal te ñu ngi sant aussi Daouda Dia boo xam ne moom bi mu déggee affaire bi yàggul mu def délibération jokk ministre bi affaire bi gaawee ni loolu yëpp vraiment mbégte la ñu ngi sant ci turu population Orkadiéré ci turu euh, école bi yëpp